bismillah iksinil ak daara yàllaaw salfi baqa abi li fiika yàllaaw bismillah iksinil ak daara yàllaaw salfi baqa abi li fiika yàllaaw auzu billahi min ashaytaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سدد لساني نوير جناني صف أماني وسد براي بقي السلام عليكم wa rahmatullahi wa gannaaw bañu ñu leen nuyoo te seen mbokkum talibé Moustapha Guèye di talibé Serigne Moustapha moom Serigne Massamba Mbacke di soppeeb Serigne Mbacke moom maam soxna loo Jóob taif tay ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal Serigne Touba te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdoul Ahad ci dëgg tey ñaan yàlla yokk ay leeram tey encouragé sëriñ Mamoor bu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke naal yi waajam waajuram wa naaloon muy naali lislaam nekkoon ca ba xëy jóge fi mu wuutu ko ci yàlla na ko àggale ba naal naali boppam di àggale di naal ba faw amin bokk yi gannaaw bañu nyongi leen nuyoo ñoo ngi del ci waxtaan wi nga xamne mom lañ leen di fatali saa nek te di ko tibbee ci mag ñi ci ay gestu ci ay histoire yu xoot di ci fàttali ko mag ñi te mooy inda sikra tansilu rahma ko gaa yu baax ya dana tax yàlla di wàccee yërmande mag ñooñu nag ñooy suñuy bàyyi ci yoon wi waaye mag ñooñu la sëñ Tuubaa dana wax saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine moo tax ñoom bañ ne bërët rek yoonu saxaaba yi lañ daal di jël kenn ku nekk fexe ba nga marqué point yu am solo ci l'islam ci àddina bii moo yàlla buy wax naan ña nga xam ne gëm nañ tey jëf jëf yi nit ku baax di jëf jëf yu sell ñooñu moom seen kër ëllëg xam nañ ko mooy àjjana te àjjana joojee lañu leen ciy servir ñu muy lu ñuy jëfandikoo ci garab ga ñuy wax tuuba lay jóge allazina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum wa ma maab bi nga xamee ne sëriñ Touba it jël na tur woowee tudde ko dëkkam bii di Touba dafa wax ne dëkk boobu dey ñeel na bépp jaam boo xam ne ab morit bu dëggal nga morit bu dëggal nag la wax morit boobee nag mooy bii nga xamee ne mooy bi nga xamante ne si dafay tegu ci jub jub nag mooy lan mooy liggéey liggéeyu lislaam liggéeyal lislaam ci say jikko muy bi matin. wala nga sopp ma lool comme ni nga xam ne ni laa soppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba di ko roy wala nga di jox addiyee ci ñaq woo sa bopp ba am ca lu lew man ko ñagi sa diine bi xidmatin jooju nag mooy mag ñi nga xam ne ci lañ doore sunu waxtaan ci sëñ Abdourahman Lo ba jaar ci ki nga xam ne mooy sëñ Mandumbe Mbàkke ba ñëw nag tey ci ki nga xam ne mooy sëriñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso jooju de bi matin jooju xam naa koo dugg rek ne fii la li sëñ Tubaa doon joxe ci kii rek la yam waaye man naa ne li sëñ Tubaa doon joxe buñ ko sañoon dañ naan ci sëñ Mbàkke Buso mii la tàmbalee te ci sëñ Mbàkke Buso la yam te boo koy xool moog sëñ Tuubaa jenn jëmm kepp la jenn jëmm képp la jenn jëmm jooju ñu doon doon nag sëñ Tuubaa firndeel na ko wax na ko ko ci ay barab sëñ Mbàkke Buso moomu ana mooy kan mooy ki nga xam ne dafa sosoo ci diggante ñaar ñoo xam ne wet loo ci jël rek mu yóbbu la ca sariif muy sallallahu alayhi wa muy comme ni mu gaare sëñ tubaa rek noonu yi la ko gaare ñoo bokk ci wet yépp sëñ Mbàkke Buso moom mi doomi bàjjani sëñ bi la doomi nijaayi sëñ bi la sëñ Touba moom mi doomi bàjjani sëñ Mbàkke Buso la doomi nijaayi sëñ Mbàkke Buso la sëñ Mbàkke Buso moom mi waajuram wu jigéen mooy soxna Faati Balla mi nga xam ne moom ak Maam Mor Anta Sali ñoo bokk bàyyi mu bokk kook ñi nga xam ne ñoom lay bëgg a lim muy serigne Buso ak ki nga xam ne moom la wax serigne ma Samba Buso ak ku ñuy wax soxna Xari Buso ñii daal ñooy dëgg dëgg dëgg bokki sëñ bi te soxna Faati Balla moomu moo sëñ Maam Mor Anta Sali mi jur sëñ touba ñoo bokk baay boo demee ci wetuk baye it sëñ Buso bee ko jur te sëñ Buso ba moom mii ko jur nag soxna Asta ko jur soxna astawalo moom mii ahmadu soxna bu soo ko jur ak ku ñuy wax ndumbe daano doomi ki nga xamante ne sii mooy sëriñ daano nga xam ne ahmadu soxna bu so moomu jur soxna astawalo maam maarama ko jur ahmadu soxna bu so moom maam abibu ñoo bokk bàyyi waaye yàlla dogal it ñaari banqaas la ci sëñ Tuubaa am am na ko ci maam balla ndax moo yur ki nga xam ne mooy wu góor waaye am na ko ci ahmadu soxna bésa mii ndax mooy mami waajuram wu jigéen kon sëriñ Buso mi ngi noonu mi ngi ganee jamono nag jolof dëkk bu ñu wax xoobe ba mu ganee jamono it ba yàlla dogal mu jaar fi ñëpp yi jaar bi mu demee ba mat dal jàng alxuraan fa sëñ tubaa jaar la jaar ndax sëñ tubaa bi matee dal jàng sëriñ maam Mor Sali da jël jox ko nijaayam muy sëñ bu soobee sëñ bu soobee ko dal ba mu ci waaye mu joor ko jël nag jox ko ki nga xam ne nag mooy tafsir Mbàkke Ndumbe muy Mui nijaayam mi nga xam ne moom soxna Astawaalo ñoo bokk lépp mu jangal ko ba ag ci fukki isib ak ñeent ci ben gi muy la tajji dana yi tafsir mbacke ndumbe daal di wàccub geey sëñ bu soobe momay dalalon dalaloon sëñ nak mo dalal sëñ mbacke bu sa mii sëñ mbàkke bu sa mii ko dalale ba mu ubbeeku la ko jël daal di koy jox ki nga xamne moy Mamar Soxna la ko jox ci salum sëñ Mamoor soxna moomee ba mu ko ko joxee ci Saalum muy jàng ba toll ci suuratu Taaha ci la Sëriñ Tuubaa jóge Bawal daa ñëw fi nga xamante ni sii mooy Saalum daa ñëw jaar naawel fekk fa ki nga xamante ni sii mooy nijaayam jooju di sëñ bu soobe ba mu ko fa fekkeet toog na fa ñetti fan waaye laata muy ñëw ca daara jañ joxe sëñ Mbàkke bu sa la jaar ba gisanteeg ñoom door a ñëw naawel dafa ñetti fan ak sëriñ mbusoo bi gannaaw bi mu tàgg ko ne ko dafa bëgg a dem poroxaan ca waajuram wa siyaara ji ko mu jox ko ci ndigal mu dem siyaara ji waajuram wa ba noppi door faa jóge nag ci wat bi nga né ne ci wat na bi mu démé nak ba bëgg delu ci la ko sëriñ mbacké bu sa jaayam jooju yabal ca sëñ maktar penda sëñ maktar penda si momé nak bam ca jaaré fekk na sëñ Mbàkke bu sa am na lu mu xam ci moom te munu ko ko wax waaye du cee gën a loo xam wax ko mu yabal ko ca kookee nga xam ne mooy sëriñ Penda ba mu ca demee ba waxtaan ak moom ba noppi ca la ko nag xamale nag ne ko yow yaway kii liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kañ ko ba xamal ko ne ko yow yaway ñi nga xam ne bu ëllëgee yaay yaa leen di rammo ci rammo ma nga xam ne ca lañ moom la ñu soxla tagg ko tagg ko ba xamal ko ne ko maa ngi la doon gis na yaa ngi waaj a dem Màkka te am gàllankoor waaye demal fi Mbàkke gis naa la nit yu baree bari yoo xam ne si limal na ko ko bim noppee nag la daa di ñëw fi nga xamante ne si mooy naawel ci nijaayam bi mu ñëwee ko loolu mu jëlee ci sëriñ maxtaar waaye mu daal ciy bég lool bi mu ca béggee nag yemu ca dafa daal di jokk boppam ci sëñ Tuubaa jox ko boppam waaye mu daal di koy wax joxaale naa la kii nga xam ne mooy sëriñ Mbàkke bu bi mu ko joxee sëriñ Mbàkke Buso nag la ko daal di yeewi mu daal di fas yéene nag dem fi nga xam ne mooy daara joojee nga xam ne mooy daara sëriñ Mamar Soxna joojee ki nekk sëriñ bu so ba mu demee ba laajteyaat ko ñu ne ko mu ngi ci daara ji ñoom it ñu jàpp ne xam naa da koy jël si di ko yóbbu ñu ne ko mu ngi ci daara ji mu ne ana ëllëgoo ja muy jàngee ñu wan ko ko ñu indil ko ko bi mu dikkee mu daal di ko ci biddal wala tam mu na ba nga xamante ne si aaya ba jeex na takk ñu daal di ko fay bàyyil allooja sëñ ba daal di fay déparé dem bi mu demee nag ba nga xamee ne dem na ba ci yoon wi mu toog fa di xaar sëñ bu Buso sëñ Mbàkke Buso ñëwee ñu jox ko allawoo ji gis aaya bi ko ci sëñ Tuubaa bindal mu ne anamu ñu ne ko dem na mu daal di ne kon nag da koy daal di toppi fekk sëñ bi moom bi mu demee ba sori daa toog di ko xaar bi mu demee nag ba nga xamee ne fekk na ko fa bi mu ko fa fekkee yàlla daal di dogal sëriñ bi ne ko yow de laa doon xaar fii ndax yow yaay ki nga xam ne yow laa mën a àndal te yaay ki nga xam ne it lii ñu may liggéeyloo su dul woon man di yow loolu la ko sëñ Tuubaa wax comme loola nag firnde ju wér la sëriñ bu Buso alxuraan daf naan wa ma shahidna illa bi di seere nay doon lu mu ay góor yàlla yu ñëpp ràññee seenu lislaam gu wér nañ ci moom bokk na ci kii ñuy wax alxaaji Malik Si bu tiwaawan ak ku ñuy wax maam Abdullahi Ñas ñoom kat seere nañ ci moom ndax ñoo ko tudde mufti muftil bilaadi wa imaamul na te loolu Alaaji Malik moo ko wax gannaaw ba nga xamee ne sëñ baa ngi dem ci géej gi ba woo sëñ Mbàkke bu sa indi ko foofu yi nga xam ne mooy ndam ngir wàllu xam-xam gi mu ko féete mu ànd ak sëñ ndaam nekk foofu ci ndaam kii di jàngale alxuraan kii di jàngale xam-xam gannaaw bi nag bi nga xamee ne yàlla dogal na bi sëñ bi demee ci géej gi ay jafe-jafe yu metti ñëw ci barab yooyu tax sëñ bàkki buso jóge fi dem dëkk ba ñuy wax sharif ci wetu tiwaawan foofee la nekk yàgg fa ba diirib li sëñ bi nekk ci géej gi ma nga foofu ba doomam ji ñuy wax sëñ moodu fofu la gane jamono ak ñi wax sëriñ asan mi nga xam wax nañ na ma nga def ca makatal mukarama bi bi nak mu ñëw nuy mu doora dem nak digal ko mu sañ ci ndam la sar gi la nga xam mo lang ak ndam gi abdourahman lo nak muy lasar gogo mu nek fofa yépp waye jamono joju sëñ bakke Buso Mam Alaaji Malik joxagn bim ci joxagn daf ne man de Mbàkke Buso mi lima xam ci mom ci ak manu xam ko ci mom ci ab xam-xam bu sel ak ko ragal yalla ak a ah ne kum dem jox la bopam day kooka moom nitu yalla nga kon Alaaji Malik seeral nako lolo. ak marché bi nga xam ne it bi El Hadj Malick wàccee 1922 sëñ Touba santoon na ko ne ko marché yàlla ko moo ki nga xam ne mooy maam Abdoulahi Ñas mu féete sëñ Touba nag ci fànn yëpp sëñ Touba nag mboolem arkaani lislaam yi nga xam ne ci la doon nampatal mag ñi la mu waxoon sëñ Mbàkke bu sa ne ko bu dul woon man de yow ñuy ñaari jëmm bokk ci aw askan ci jenn deret te jëfi sëñ bu sa moom confirmé na loolu bu wér a wér ndax li nekk ci moom ci ragal yàlla ak xam gi mu xam lislaam ak xam-xam bi nga xam ne yàlla may na ko ko muy mboolem fànne xam-xam yi ba ci xilmu nu joom bi nga xam ne ci lay xàmmee li nga xamante ne si mooy yi nga xam ne mooy heure julli yi xàmmee fi penku bi nekk xàmmee fi nga xamante ne si mooy fi kaaba gi nekk xeeti xam-xam yi nga xam ne boo demoon tey ci université yi nasaraan si danga fekk ñuy jëfandikoo xeeti xam-xam yoo xam ne si ñoom ci seen école yi nga ko mën a jaar sëñ bàkki bu suñu borom dogal na loolu moom làq na ko bu yàgg nga xam ne dawul jëfandikoo mukk daati tubaab yi muy uh, at yi ak weer yi waaye daf daan jëfandikoo li nga xamante ne si mooy hijriya bi te loolu mi ngi ko doon ne ci sëñ Tuubaa sëñ Bàkke Buso boobu yi mu ànd ak sëñ Touba te sëñ bi démagul ci géej gi keroog boobu nga xamee ne yoonu murit taxaw na uur boobu sëñ Mbàkke bu soo ci gannaaw sëñ Madou Ndoumbe moom moo jébbalu nekk juróom-ñetteel bi su ko defee nag mu continuer foofa nekk ca ba ni sëñ bi ñëwee Mbàkke Bawal fépp fu mu nekk li ñu wax ci sëñ Madou Ndoumbe lépp mu ngi ci moom. amon aw fit lol nak ndax fit wi lim am moy lepp lu dox bëgg bëgg dox digam ak l'islam lu bëgg dox digam ak l'islam koko du ci am maslaha da koy daa di li nga xamanteni ci si la ko ci yalla sant moy day am aw fit comme fit bi sëñ tubaa amoon ci dir bi muy nekké ci loxol bi ba lu bëgg def digam ak boromam ak yonent bi tubaab bi mënu ko ci gàllankoor ta du togn kenn noni le sëñ bakki bu sayit it doon touba ci lepp lo xamanteni ci si responsabilité bu mu bëgg jël la sëñ bakki bu sa da koy jël jël ko ta du ci am dara lu muy ragal ta leetar yam nga xamne ne la doon jëfëndiko it bo démé fi nga xamne moy gédé bo démé njabot ki dañ la ko génneel wan la ko nga xamne lu ma sa xew lu nek dugal na ci loxom ci walu social ak lu mën doon sëñ bakki bu sa dugal na ci loxom te tuba bobu nga xamne mom lañ doon wax teñ tanor teñ teñ tanoor tam nekkon lambaay jamono bi mouride yi doora lu mu leen doon fitnal di leen door di nangu seeni alal bu ndoxataal bu ne mo bu ndoxataal leen ko sëñ bakki bu se mo jël responsabilité bind teñ bobu ab lettre xamal ko ne ko mouride yooyu ngay door day ñu kenn ta ab kat day na la woor ne tangi lay mujjé ëlëk ba lola sax ca la commanda ba sukkandiku ba tàmbulee may murit yi jàmm te jamono jooje de ku ñemee yëkkati ku ñemee yëkkati ab leetal wala ay wax yu ñagas di ko jëmee ci ab tubaab te dëgg rek lal ko booba boo ne sëñ Touba sëñ Mbàkke bi sëñ nga ci mën a teg muy ñaareel bi kon la mu waxoon ba tey ne ko maag yow benn lañ dunu ñaar bu du woon man di yow loola ma ngay tàmbalee di feeñ mbolem fu seigne touba warona a taxawu boppam taxawu fa l'islam bi ci jëmam ci arkan yep seigne bakki bu sa moko ko fofu ta lolu bokku na ci denkan yim ko denkon mu deson touba bi mi dem fi nga xamanteni ci moy bari na ci it denkan lim ko euh bind ko ab lettre bu koy may autorisation jumaay touba te booba sëñ bi mën na ko bindal boppam waaye dafa jaayante woon ne du tàllal loxoom kenn waaye mu doxale sëñ Mbàkke Buso ci loolu bi mu paree mu signé wax ne leetar bii de ki ko bind man maa ko ko bind loo daal may jumaay Tuubaa ji loola tamit moo ko may euh, lii nga xamante ne siit mooy jumaa yi xibla yi nga xam ne ñu ngi leen di xiblaal ndax autorisation ba wax nañ leen moo ko njëkk moom la ko sëñ Tuubaa bind loo woon lépp lu jëm ci kilifa yi diine it ci maslaa bu ñu war a maslaa ak ñoom wala mu daarante gu ñu war a mu daarante ak ñoom ak lum ca mën a doon rek sëñ bu Buso mii moom la sëñ Tuubaa di teg loola ci loxoom te su ko defee ba noppi sëñ bi da koy daal di signé confirmer ko wane ne kii kat moom lim nekk li muy wax wala lim bind man maa ko ko def loo kon nag ñun ñii nga xam ne nooy murit yi. ñàkkuñu référence kon lu waay def rek daf laa neex waaye neex googu mu la neex nag taxul mu doon dëgg ndax nit ki lu muy def da ko war a xam te sëñ bi indil nañu ay référence ndax sëñ bi mëneesu cee jëfandikoo te jëfandikoowul xam-xam sëñ bi kenn du ci jëfandikoo ay daanukat lii xew léegi lii xew léegi ci jamono jii ñàkk xam rek ak ñàkk delluwaat ci balluwaay géeji xam-xam yooyu moo nu ko yóbbee te ku delluwaat ci sëñ bu Buso day man ngaa bañ a sax tudd sëñ Tuuba demal rek ci mbirum sëñ bu sa ci wàllu xam-xam ni mu ko doon jëfandikoo te lu ñëw lu nekk dana ci jël responsabilité ba mu ca war a jël te ci xam-xam la koy teg sëñ bi dénkoon ko nag boppam ne su ma génnee àddina na ma sëñ bu sa taxaw te kilifa yi diine yu baree bari gis nañ ne yoo xam ne si ñu ngi woon ci biir yoon yi bi ñu génnee àddina sëñ bu Buso moo leen taxaw ndax taxawu jëmi sëñ Tuuba rek tax na nga mëna wax ne taxawu na ñëpp waaye cheikh si fi nekkoon ku mel ne daru asan njaay moom la sëñ tubaa digaloon ne ko demal taxawu ko sëñ jéeri waa dan sugu moom la joxoon digal ne ko demal taxawu ko sëñ maam moor saam la joxoon digal ne ko demal taxawu ko ñooñu nag ku leen taxaw taxawu sëñ abdourahman loo taxawu sëñ ma ndumbe taxawu sëñ ma samba kooka moom yaakaar naa ne képp koy wax te boole woo ko ci la ngay wax moom xorom du ko am moo ngay togg te doo ca def lenn lu koy tax a neex wala lu koy tax a baax ñoo yem kon man li nga xam ne man moom laa bëggoon te waxoon ko ci gannaaw ne leen pour delluwaat ci liggéeyub sëñ Touba nga ñi dellu ci njàngaleem sëñ Touba rek ndax sëñ Touba moom xam-xam la doon jëfandikoo ak téereb suñ borom bii daal alxuraan te lenn lu ci ne am na mag mu ko féetale woon ba mu mat ko sëkk. bu Alquran alxuraan ji sëñ daam abdourahman lo maté na ko sëpp nga xamné malakani alquran tamlikan yadum bi sëñ touba don wax lola ci sëñ dam la ko sippi te bi dam diké wane na na ah sëriñ touba moy borom Alquran, ndax gis nga ñim ci jangal ci mbolo mu jeex ta foo mas sa dégg sëñ dam ñu istale ko ci alquran jar istale nañ sëñ bakki bu sa ci wetk sëñ bakki bu sa gis nga ko xam-xam nga xamné ne xam-xam buy jëriñ sëñ bakki bu sa yalla dafa dogal mom suñ borom jox na ko ko mu boole ko jikko ya àndal yépp ci ak maandu ak fegu ak kóolute yooyu yépp am na ko kon sëñ Tuubaa li mu am ci bunte xam-xam ñu ko ñu fa féetale woon sëñ Mbàkke Buso moo ci ka nga xam ne moo ci numéro un te sëñ Mbàkke e, Buso bi mu nekkee ci daara yi sëñ Mamar Soxna ji te sëriñ tubaa demoon foofee nga xamante ne si moom mooy Saalum ba mu fa demee it gis nga la ko xam ne moom la ko sëñ maxtaar penda wax sëñ maxtaar penda moomee nag bam ko ko waxee it ci cat la mag naan ko bul fàtte mbàkke ak ki nga xam ne mooy ceerno te ñoom ñaar la njëkk a tudd waaye sëñ mbàkke bu so la njëkk tudd bi mu tuddee sëñ mbàkke bu so nag sëñ mbàkke bu so moom bi mu ñëwee dafa remplir loola lépp nga xam ne tool bi ko sëñ Tuubaa sasoon waxuma la booy waaye dafa àlliwaat sax sofaat ci ba mu gën a yaatu te dara booyu ci kon kooku kuy waxtaane ci sëñ Tuubaa moom nga war a jiital kuy waxtaan ci sëñ moom nga war jiital ndax waaj na waa sëñ Tuubaa waajal na ko bi mu ko waajalee nag mbër la moo xam ne sii foo ko teg kenn du ko dëkk mbër la moom foo ko teg ci réew mi ci bunt yii ma la wax kenn du ko dëkk kon dëkk sëñ tuba moom ak ndaf mënu ko weesu mm, sëñ bàkki bu sa mi mbër la moom fu ko sëñ tuba teg teg fa sëñ abdourahman loo teg fa sëñ manumbe kenn du leen dëkk te ñooñu mën nañoo jiite jamono ci lépp te loolu bu demee ba ci waxtaan wi dem gim ko doon demal màkk ak arab yi ni nit ñu ñuul ñu amee seen complexe ba sëñ bi doon wax naan walay sa yujibu sawaadal jismi safahatal fata wa su'a fahmi sëñ bàkki bu so bim dem bitim réew loola moom dund ko moom dafa jël dëggal boppam xam ne jullit la te xam-xam kenn du ko judduwaale ki ko sàkku rek moo koy am te sëñ bi la ko yàlla booleel moo tax nag bi ko yàlla booleeg sëñ Tuubaa it ba mu demee ci naar yi xamal leen na leen doon der bu ñuul te taxul nga des gannaaw doon der bu ñuul taxul nga am gumba xol ba doo mën a gis dara loola naar yi seere nañ ko ba finalement gis nga lam leen fa wan ñoom fa daan dajeel dax wa yam daan defak ñoom masala yam daan weranteeg ñoom ba bu leen ca tontoo ñoom daf leen di jaaxal ba seen xel nekkoon ci ñu bëgg ko téye mu am fa ay relation yoo xamee ne que bari nañu daan dem màkkatal mu karam di ko tàggu daf leen di booleeg xaritam yooyee nga xam ne ba mu àndeeg sëñ Fallu ak sëñ Cheikh Anta ak sëñ Mawlaaye Busa xarit yooyee ma fa amoon ba ñu wóolu ko ca xam-xam ba képp kum leen booleel bu demee danañ ko fonk niñ ko fonke sëñ Mor Touré moom nga xam ne doomi nijaayu maam Cheikh Antala la loolu moom yaakaar naa ne am nañ ci lu leer ci lettre ba mu ko joxoon jox ko naar ba nga xamante ni si ba mu demee moo leen dalaloon wax ko ne ko ci ñun la jógee te mooy ki nga xamante ni si doomi nijaay maam Cheikh Anta mi ma fi àndaloon la wax ko yooyu ba tax na ba mu demee dañ ko jël teg ko ca kaw loola tax na it expérience teewul bu masaan génn da koy dolli ci biti boole kook di ko jëlaat ci bitti te loola lépp liggéeyu Sëñ la kon sëñ Tuubaa bees di yéemu ci moom deesu tëb tëb dem ci jëmmam ji dañuy xool ñi ñu defar ak doole ji ñu yor ak moom bi nga xam ne moom la ñu wekk seen seen seen ay mbir bañ liggéeyal ko ci lislaam liggéey bu rafet ak doon gi ñu doon sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni saxaaba yi defoon yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu yëpp des na ci ñëw ba njëkkee ci li nga xam ne mooy dikku tuubaam taxawu gam ko taxaw ya ca xew yépp incha bu soob yàlla des na ci jukki kem kàttan andi ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillah iksinil ak ak daara yàllaaw sal si baqa بفيك يا الله